ñu ngi wuyoo ci turu Ibrahima fay ñu nekk coordinateur MPDD mouvement des patriotes pour le développement de Diourbel mouvement bi ñu créé ko le 6 juin ñu daje ak le ministre Dame Diop le 28 juin pour ñu def alliance tey ñu daje fi pour def benn cérémonie d'investiture pour maanaam fësal suñu ànd ak Dame Diop ci kanamu média yi ak ci kanamu mbudaay yëpp di wax monsieur ministre Euh, ñi jël fii parole moo xam délégué de quartier bi ak yeneen imam yi fi jaar ak soxna yi wax nañ la doléance yi doléance yi mooy def bi lëndëm na am na secteur ba nga xamante ne amuñu ndox muy Touba Ndindi je crois que keroog bu ma ñëwee sa salle nga recevoir ñu bokk na ci li ma la njëkk a wax ki indi ay kilomètres nag 60 mètres pour ñëpp jot ci loolu je crois war dafa doon problème mu nekk suñu première doléance suñu premier combat mooy waa Touba Ndindi monsieur le ministre may leen ndox ak courant suñ première doléance mooy Touba Ndindi nga may leen ndox ak courant mooy suñu combat bu mag bi nga xamante ni moom la ñuy ànd ak yow di ko xeex pour fësal suñu ànd ak yow nga nekk suñ candidat ñun waa MPDD nga nekk suñ candidat ci élection yi nga xamante ni moom la ñu jëm ñu fas naa xeexal fas leen laa jàppale xëyu ndaw yi mbudaay fii wax dëgg yàlla tumbaranke nañ ay fonctionnaire ñi fi nekk ay fonctionnaire dañoo dañoo réussir concours crème wala Pastef ñu nekk ko mais pour nga dugg ci gis fonctionnaire loolu yombul ci mbudaay ñu lay tàllal suñu loxo nag lii nag nga gis nii tey liggéey bii rassemblement bi du man du Baye Souka du Gora Ndiaye mais population bi la ñoom ñoo wuy si seen i doom nga jàppale leen bu baax jigéen ñi présenté woon naa ay GIE présenté la projet bëgg naa jigéen ñi nga génne xaalis monsieur le ministre nga jox ñu financé leen jigéen ñi monsieur le ministre bëgg naa nga génn xaalis jox leen ñu financé leen ñu woyal liggéey bi ndax am nañ ci solo politique nee nañ jeune moo koy def waaye jeune mën na dem sans jigéen kon nga jàppale jigéen ñi bu baax baax pour ñu mën a ànd ak ñun ci combat bi nga xamante ne moom la ñuy xeex mooy nga nekk suñu candidat ñu bëgg laa jël fal la ci boppu mairie bi. Ibrahima maa ngi lay félicité maa ngi lay encouragé maa ngi lay sant bu baax a baax a baax. li nga ma waxoon def nga ko yéen yéen a seen mouvement fii tudde ko mouvement des patriotes pour le développement de Diourbel mu am ay cadre am ay mag am ay jigéen am ay ndaw ngeen ñëw wër ma ba gis ma ne ma gis nañ li ngay def jàpp nañ ne yow yaay profil bi gën ci élection yi ñu jëm dañu ñëw pour jàppale la ndax bu njëkk ku am lu mel nii nit ñëpp dañuy daw wut si la nit ñi daw wut si leen ngeen ne ñun Dame Diop mooy suñu choix ne ma dama bëgg def ngoon boo xam ne dinañ tase fii ci Mbudaay ñu génne suñu ay mbokk suñu ay waajur suñu ay kilifa pour biral la suñu jàppale la suñu ànd ak yow wax ngeen ko def ngeen ko Ibrahima da ngeen taxawal seen mouvement tudde ko mouvement des patriotes pour le développement de Diourbel ngeen di yëngu ci développement jë si décidé ñëw jàppale ma ci li ñuy def muy politique ma la ciy sant bu baax parce que li ma gëm mooy man politique bi ñuy def dafa war a dem ci développement su ngeen defee seen mouvement tudde ko mouvement des patriotes pour le développement de Diourbel jàpp naa ne képp kuy def politique seen yéen lay jàppale kon boog suñu ñëwee lëkkaloo fekk ne ci dëkk bi fii am na ñoo xam ne nii àndoon naa ak ñoom fii di liggéey démb tey soog a dëkk bii suñu dëkk la suñu ay bàyyi ñoo fi nekkoon suñuy bàyyi jox ñu dëkk bi kon boog ñun suba dañ ko war a jox suñu ay doom loolu moo war a tax ñun ñëpp ñu war a futteeku pour liggéey dëkk bi te liggéey dëkk bi nag du lenn lu dul joxante loxo bokk ndey bokk bàyyi yëkkateendoo dóorandoo comme ni ngeen ko def fii tey parce que lu kenn mën ñaar moo ko ko dax kon boog lii ñu def nii nga xam ni fan yëpp moom la ñuy def ay kilifa yu nekk ci dëkk bi décidé ñëw ànd ak ñun ci li ñu jëm ci élection yi ñu jëm ah ñu ngi ciy sant yàlla bu baax di ñaar yàlla mu yóbbu ñu ci ak jàmm defal ñu ci ndam bu sedd guy mu nekk njëriñu dëkk bi. kon boog li ngeen wax ci doléance yi fii ci quartier bi dégg naa ko am na loo xam ni xamoon naa ko parce que am na lu ma ci def Baye Serigne wax na ko ci wàllu jàppale ndaw ñi ci wàllu permis de conduire ci wàllu jàppale mbër yi mais aussi surtout ci wàllu ndox. fii ci gannaaw suñu suñu sëriñ soxna Daba Mbacké Falilou dëkk fi de demax fi daara góorgóorlu nañ suñu kem kàttan indi fi ndox waaye dinañ ko gën a yokk ba mu dem ci yeneen quartier may jël engagement fii Ibrahima que borne fontaine bi nga ma wax léegi bi may toog jàpp naa ne bëgg-bëgg askan bi la incha allahu rabbi dinaa ko def yeneen yi nag damay faral di wax ci sama politique bëgguma di digee digee yàkkamti ku la gërëm la mais nañu dox ba ci kanam incha ci jigéen ñi jàppale ndaw ñi jàppale koñ bi ci wàllu làmp ak ci wàllu wàllu ndox kon boog maa ngi jox sama kàddu foofu di leen sant bu baax a baax a baax di leen gërëm.